ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله لأن باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات xaw ma nag xaw ma lu tax mu def diyaanaati waaw nee lii mooy chapitre bi nga xam ne lii muy jàngale mooy lu làmmiñ yi di tudd xol yi di ko fas ci li war ci mbiri diine waaw maanaa tawxid la ñoo jàngal waaw tawxid la ñoo jàngal parce que yonentu sallallahu alayhi wa ba muy wax liimaan daf ne an tuumina billah waaye ba muy wax lislaam it daf ne an tashhada an laa ilaha illa allah waaw te nag ash-shahaadatu liman shahida seedeel la nga fekkee waaw li làmmiñ bi di tudd na ne ci xol bi na ne ci bi ngay màgg ngay màgg ba dootul nekkati pas-pas rek waaye xam-xam lay doon waaw xam-xam lay doon maanaa xam-xam la sax waaye danga dafa am al al al ilmu bil bara bil burhan waaw yi nga jis yëpp war nga ci xamee ne yàlla rek a yàlla yi nga jis yëpp war nga ci xamee ne yàlla rek a yàlla loolay al ilmu bil burhan waaye nag di nga dem ba yegg ci al ilmu bi shuhudi wal iyaan waaw boo demee nag ba janoog ki nga doon wut ah booba soxlaatoo yi la ko doon tegtal nag waaw dootoo soxla ki ko doon tegtal dootoo ko soxla waaw yàlla bum mu ñu ump yaa rabbi nee na min dalika bokk na ci yi làmmeñ war a tudd xol war ko fas min dalika bokk na ci al imaanu gëm yàlla bil qalbi ci xol wa nut ko ak tudd bil lisaani ci làmmiñ min dalika bokk na ci yoo al imaanu gëm bil qalbi ci xol wa nut ko ak tudd bil lisaani ci làmmiñ moo ñuy gëm ci xol di ko tudd ci làmmiñ mu ne anna allaha naka yàlla ilaahun buur la waxidun bay benn laa ilaha gayruhu kenn du yàlla ku dut moom wala shabiha lahu déet aji niru di ko ñeel kenn niru dara niruwu ko kenn niruwu ko wala nadira lahu amul ndend kenn dendut ak moom lenn dendut ak moom wala walada lahu doom ñeelu ko wala walida lahu wayjur ñeelu ko wala saaxibata lahu amul soxna wala sharika lahu kenn bokkut ak moom tus ci nguuram seetal loolu waaw nee na daal eh, bokk na ci yi xol war a gëm an la anna waxid laa ilaha gayru yàlla rek a yàlla wala shabiha déet aji niroo lahu di ko ñeyal wala nadira dét ndend lahu di ko ñeel wala walada lahu dét doom di ko ñeel wala walida lahu du caagan wayjur di ko ñeel wala saahibata du caagan àndandoor lahu di ko ñeel mooy soxna wala sharika lahu amul bokkaale ko kan la mu ne laysa li awwaliyatihi ibtidaa'un njëlbéenam amul fu mu tàmbale wala li axiriyatihi du ñeel ko jug mujjëm inqidaa'un jeex waaw yàlla tàmbaliwut du jeex naka jekk mi ngi fi du fi jóg mukk subhaanahu wa taala maanaam yàlla mosta ñàkk a nekk waaw du mosa ñàkk a nekkit subhaanahu wa taala laysa li awaliyati déddi ñeel njëlbeenam ibtidaun tàmbali wala li axiriyatihi du caageen ko jug mujjëm inqidaun jeex wala yablugu du mën jot kunha sifatihi dëgg dëgg meloom alwaasifuuna way melo yi waaw ah, way way melal yi waaye ñi ngi ñiy jéem a décrire nu yàlla mel dañuy sonn rek waaye kenn mënu ko melal subhaanahu wa taala moom rek mën a melal boppam wala yuxiitu bi amrihi du peeg mbiram almutafakkiruuna way xalaat yi yactabiru almutafakkiruuna bi ayaatihi way xalaat yi ci ay kéemtaanam rek lañ yem waaw signes yim leen tegal ci lañ mën a yem waaye walaa yatafakkaruuna duñ mën a xalaat nag fi mahiyati zaatihi ci dëgg dëgg jëmmam ji subhaanahu wa taala waaw lu tax walaa yuxituuna duñu mën a peeg bi cheyin dara min ilmihi ci xamam waaw illa bi ma sha lu dul li ko neex rek a lim bëgg ñu xam ko ci moom rek la ñu xam ci moom wasia ëpp na kursiyuhu kursiyom bi assamaawaati asamaani juróom ñaar wal arda ak suufi juróom ñaar waaw eh, xam nga buur dafay am lu ñoo tuddee arash bu ko defee arash ba dafay am lu ñuy tuddee kursiyu léegi nag loolu lay misaale rek waaye majaaz la waaw majaaz la waaw ah. te kursiyum eh, muy pied d'installu lu arsh boo boolee woon asamaan juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar yi nekk ci seen diggante yëpp boo leen sànnee kursi yu day mel ni benn eh, pusa boo sànni ci biir géej kursi yu tamit li muy rëy rëy noonu la tuutee ci arash waaw ah. kursi yu ëpp na asamaan ak suuf waaye nag wala yauduhu diisu ko wala yauduhu tiisu ko wala yauduhu tëwu ko waaw diisu ko tiisu ko tëwu ko xefdahuma wattu leen ñoom ñaar muy asamaan ak suuf ak ya ca nekk yépp wa huwa moom yàlla al aliyu al azim moo kawe moo màgg subhanahu wa taala al alimu mooy aji alxabiiru moo dëñ kumpa dëñ kumpa léeg-léeg nga dégg wolof ne diw nim dëñee kumpa fekk diw dëñul kumpa dafa bañ kumpa yàlla rek moo dëñ kumpa ki bañ kumpa mooy ki bëggul dara ump ko waaye lu bari ump na ko ki dëñ kumpa nag mooy ki dara umput kooku yàlla kottu la waaw almudabbiru mooy aji settantal moom yàlla lépp moo ko moo ko moo ko planifié na mu demee ak tadbir mooy planification ah. waaw waaw maanaam bu doon ci waxi wolof ñu ne settantal xam naa wa wolof war na am prix bu gën ah. bu gën a baax boobu waaw bu gën a baax boobu waaw maanaa daal hmm. lu ne rek na mu demee mooma waaw ah. waaw am du feel subhanahu wa waaw lu ne moo ko planifié na mu demee te moo koy toppatoo yudabbiru l-amra mina s-samaa'i ila l-ard lépp mooma subhaanahu wa taala alqadiru waaw ki nga xam ne mooy mënaakoon bi waaw mënaakoon xam nga alqadiru bokkul ak alqadir waaw ñaar yëpp yàlla la nag subhaanahu wa yëpp yàlla la taala Mm-hmm. assamiu mooy dégga kon bi albasiru di gisa kon bi alaliyu di aji kawe gi alkabir di aji mag ji moom moo rëy waaw moo rëy waaw yëpp nag bul bul bul gis cër bul gis bul gis cër bul gis cër waaw bul gis forme waaw wa annahu naka yàlla fawqa arshihi not na arasham almajidu moom yàlla mooy aji tedd bi zaatihi ci jëmmam ku nekk leneen la teddal yàlla nag moom moo tedd moom ci jëmmam am na ñu ne almajidi bi zaatihi bu tax nga foog ne yàlla dafa nekk ca kaw arash ak jëmmam wëlis feneen ni mu nekke arash la nekkee feneen waaye not gim not arash bi zaatihi la ko notee waaw wala yàlla moom mooy almajiidu bi zaatihi waaw waaye bul gis barab mukk ndax yàlla nekk na fi te fekk arash amut yàlla nekk na fi te fekk barab amut subhaanahu wa taala wa huwa fi kulli makaanin mi ngi ci barab bu ne moom yàlla bi ilmihi ci xamam xam nekk na fa ci jëmmam nekk na fa ci xamam waaye nam fa nekkee moom rek ko xam subhaanahu wa taala waaw Cheikh Tidiane radiallahu anhu dafay wax ne yàllaa ngi ànd ku nekk ci ñun ak jëmmam subhaanahu wa taala te loolu mooy dëgg waaw mooy dëgg loolu mooy dëgg waaye bul bul bul gis wa huwa wa annahu parce que tudd na arash ndax eh, li li nas tudd arash tudd na fawq ndax nas mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci ci mi ngi ci nas yaxaafuuna rabbahum min fawqihim waaw yaxaafuuna rabbahum min fawqihim ak wa inna fawqahum qahirun waaw xam nga yow nit sax dinga wax ne diw moo kawe diw fekk barab taxul ngay wax mais dara jaa tax ngay wax moo yàlla buñ naan mu ngi ci kaw arash walla kawe arash bul tudd bërëb mukk waaw waaye tuddal dégg nga makaanatu subhaanahu wa taala waaw bu dee nag nekk arash ni mu fa nekkee la nekke ci kaw suuf maanaam yàlla gënt nekk ci kaw arash ci kaw suuf wa huwa alladi fi lsamaai ilah wa fi l ardi ilah waaw ala al arshi stawa not na maanaam ala arsh ci kaw aras istawa la not wa ala al mulki ci kaw nguur gi ixtawa la laq wa lahu al asmaau al xusna moom képp moom moom tur yu rafet yi yi gën a rafet wa sifaatu ak melo al ula yi gën a kawe lam yazal bi jamii sifatihi wa asmaihi yàlla mosul dëñ di melloo mbooleem meloo mi ak turam yi taala kawe na moom yàlla wala taala jomb na an takkoona di nekk sifaatu ay meloom maxluqatan di li ñu di yu ñu bind wa asmaahu ak i turam muxdathatan di di yu ñu sos waaw yàlla jomb na ay meloom di mbindeef jomb na ay turam di sosu maanaa bind gim bind taxut mu tudd alxaaliqu tudd na alxaaliqu fekk bindu dara tudd na arrahman fekk ku muy yërëm sax newut tudd na alaalimu te kenn ba lenn new fi tudd na assamiu albasiru yooyu yëpp fekk kuy wax soxla ku la dégg soxla ku la gis new fi moom rek subhaanahu wa taala maanaam yàlla ni mu naka jekkee noonu la ay meloom ak i turam naka jekkee kallama Muusa bi kalaamihi alladi huwa sifatu daatihi laa xalqun min xalqihi kallama wax na Muusa ak bi kalaamihi ci kàddoom alladi gi nga xam ne huwa moom sifatu daatihi meloo jëmmam la laa xalqun min du caageen mbindeef ci mbindeefe naka la waxee ak moom xamuñu ko waaye wax jam wax ak moom du wax ju sosu mukk wa tajalla def na tajalli fe manifesté wu na lil jabali jabalu tuuri sina fa saara mu mujj dakkan mokkuru mbax min jalaalihi ngir màggaayu yàlla falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan wa anna alqur'ana war na it ñu fas gëm te wax ne alquran kalaamullahi waxu yàlla laysa bi maxluqin duut mbindeef fa yebiida kon mu alku ni mbindeef yëpp di alko wala sifatin du caagen muy meloo li maxluqin ñeel kuñ bind fayan fada kon mu jeex ni mbindeef yëpp di jeexee waaw mi ngi bëgg nga bàyyi xel li mu'tazila di wax ne alquran waxi wax la ju yàlla bind waaye du dégg nga du waxi yàlla waaw nekkoon na fitna wu ju réeré ci jamono imaamu Ahmed waaw ah. waaye alquran wax yàlla la du mbindeef mbindeef dafay alku te alquran du alku du melow mbindeef dafay jeex te alquran du jeex wal imaanu war na it ñu gëm te wax suñuy làmmeñ gëm ci suñu xol bil qadari dogal war gëm bil qadari dogal xayrihi bu baax ba wa sharrihi bu bon ba xayri yiw wa wa charrihi ak ay wa dogalu yiw ak dogalu ay xulwihi bu neex ba wa murrihi ak bu weex ba lépp dogalam la wa kullu dalika lépp loolu la qad qadarahu llahu yàlla ko dogal qad qaddarahu dogal na ko llahu yàlla rabbuna suñ borom wa maqadirul umuuri kemuk yëf yi dogal yi bi yeddi yi ci loxam la ne wa masdaruha gongeekuk yëf yi an qadaa'ihi tukkee na ci dogalam bu mag ba subhaanahu wa taala ah. lépp mooma dara xewut te yëgut ko non seulement dara xewut te yëgu ko waaye lu xewit moo moo xewal te xam na ko alima kulla cheyin xam na lu ne qabla kawnihi njëkk nekkam fa jara loolu le daw ala qadarihi ci ni ko yàlla dogalee laa yakunu du am min ibaadihi ci jaamam yi qawlun wax wala amalun du caageen jëf illaa wa qadaahu lu dul ne yàlla dogal na ko wa sabaqa ilmuhu xam-xamam jiitu bihi ca loolu dara du nekk ci jaam joge ci jaam yi dégg nga muy wax mbaa jëf lu dul ne yàlla dogaloon na ko xam na ko alaa yaalamu ni mu ko waxee ci suratul mulki xanaa du xam man xalaqa ku bind wa huwa te moom allatifu mooy aji ñeewante alxabiiru mooy aji dëñ kumpa yudillu man yashaau fa yaxduluhu bi adlihi yàlla mooy réeral ku ko neex gàccel ko màndooma ca àgg waaw ku mu bàyyeeg màndoom nga réer waaye wa yahdi mooy jubal man yashaau ku ko neex fa yuwaffiquhu mu defal ko tawfiq dëppale ko bi fadlihi ngir ngëneelam bi fadlihi ci sababi ngëneelam ku baaxit moo la baaxal maanaam ku mu seetaan ba nga réer mandooma ku mu jubal ngëneelam xam nga yàlla jubal na ñëpp jubal gu njëkk gi mooy jubalu wane yoon ku topp ca yoon wa nag mu jox la geneen jubal muy jubalu tawfiq ngëneelam ku bàyyi yoon wana nag mu seetaan la nga réer mandoom fa kullun képp kenn mu yassarun kuñ yombalal la bi tey siirihi ci yombaluk yàlla ilaa ma jëm ca la nga xam ne sabaqa jiitu na min ilmihi ci xam-xamam wa qadarihi ak dogalam min shaqiyin moo xam aji texee di la aw saidin ba aji texe ku nekk rek yombalal na la dégg nga la jiitu ci xam-xamam waaw ak dogalam maanaam ku nekk ci ñun yàlla xam na fooy mujj da ngay texe wala da ngay texee di waaw dogalub asal ba lu raglu la waaye nag ku nekk dafa am lu la yàlla togg yow def ko rek sooy def jëfi ku texe mooy wane ne rek yow foofu nga bokk ah boo fekkee ne nit ki mu ngi def leneen nit màndarga la ci la ni feneen la bokk Mhm. waaw yonentu sallallahu dana wax ne doomu aadama balaa moo génn danañ wax malaaka mi mu bind balaa moo waaw fekk mi ngi ci biiru ndeyam malaaka mi daal di bind dégg nga ñaata at lay dund bind wërsëgam bind ndax dana dafay texee wala dafay texeeti yal nañu yàlla boole ci way texee nee na taala allaahu taala laahu yàlla ëpp na an yakoona di nekk fi mulki ci nguuram maa laa yuridu lu mu bëggut lu yàlla nammut du nekk ci nguuram aw yakuuna wala di nekk li ahadin di ñeel kenn ginan doylu anu walis yàlla amul kenn ku mën a doylu walis yàlla am gi nga am mooma continuer gi nga continuer di am mooma nicmatul ijaadi wal imdaadi xaaliqun mooy aji bind li kulli cheyin lu ne alaa dama ne huwa moom rabbul ibaadi mooy borom jaam ñi wa rabbu acmaalihim mooy borom seeni jëfit wallahu xalaqakum wa ma taamaluun wal muqaddiru yàlla ci boppam mooy natt li xarakaatihim yëngatu jaam ñi wa aajaalihim ak seeni dikk albaacitu rusula mooy aji yónni yonantu yi ilayhim jëm ci ñoom li iqaamati alxujjati ngir taxawal lay alayhim ci ñoom moo yónni yonent yi ngir dog ngant de bu yónni wuloon yonent yi danañ ko wax ne lawlaa arsalta ilayna rasulan fa nattabia ayaati moo lu teewoon nga yónni ñu ay ndaw ngir ñu xam li nga bëgg ba topp ko bam ñu yónni ay ndaw nag yónnee ñu ndaw yi gën a baax yi gën a jàng yi gën a mën a jàngale yi gën a jub niñ ko waxee sànq yàlla du yónni ku ragal du yónni ku ñaaw du yónni ku ñàkki bokk waaw ku ñaaw kenn du la bëgg ba lay déglu ku ñàkki bokk dañ lay noggatu ku ragal buñ la xuppee nga daw yàlla nag ñi gën a baax la yónni jox leen la gën a baax dégg nga te mooy lim soxla ci ñun jaamu gi ak niñ koy jaamoo thumma gannaaw ga xatama mu tëj arrisalata yonantu gi wan nidaarata ak waare gi aha wan nubuwata ak eh, nubuwatu gi mu tëjee ko bi muhammadin ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannadaarata thumma xatama risalata wannadaarata wannubuwata maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatimul anbiyaa'i mooy xaatimul mursalina mooy xaatimul mundir mundirina bi nubuwati maanaam képp ku ñëwati daal ne la yàllaa ma yebal gannaaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne benn dafay kàcc mbaa yaram wi neexut waaw fa jaalahu yàllaa ko def axiral mursalina mu mujj ci yonent yi bashiran di muy aji bégle wa nadiran di aji xuppe di bégal ñi baax li leen yàlla préparel ci xeeti fay ak xeeti yiw waaye xupp ñi bonit li leen yàlla préparel ci xeeti mbugal bañ ba wa daaiyan ta muy aji woote ilallahi jëm ci yàlla bi idnihi ci ndigalam wa siraajan di lamp mu niran bay aji leer seetal bi idnihi ji woote bëri nañ de waaye ñi am ndigal rek ñooy nekk siraajan mu niran lamp buy leeral wa siraajan muy lamp mu niran bay aji leeral moo tax daawa daawa na waaye du ñëpp la ñuy ñi yiwu yi tamit bari nañ de waaye du ñëppay mën a wane yoon ñi am iznu rek ñooy mën a wane yoon waaw wa anzala yàlla wàcce alay ci yonent yàlla muhammad kitaabahu téeréem ba alxakima bay aji xereñ muy ci yonent yàlla muhammad ak ci alquran diina hoo diineem ji alqawima jay wa mu gindee bii ci yonent bi yoon wa almustaqima bay wa anna allaha wala waaw déedéet wa anna saata moo ci topp wa anna saata war na it ñu gëm ne bés penc aatiyatun aji dikk la laa rayba fiha sikk amut ci wa anna allaha ak naka yàlla yabaathu dana dekkil man yamuutu képp koo xam ne deena kama badaahum niñ tàmbalee yacuuduuna la ñuy dellu wax naa leen mooy ki ëpp xam-xam ci jamono moom imaam ibnu abi zeyd al xayrawaani borom risalatu moo tax waxam dafay saf alquran dafay saf yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibnu abi zeyd ah, xam moo taxoon ñu koy wax maalik mu ndaw maanaam gannaaw imaam malik kenn melul woon ni malik ba bim ñëwee ah, kenn déggewuloo nit ni moom moo tax al waxam dafay safa alquran dafay sax dafay sax wax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wa anna allaha war nañu gëm ne yàlla subhaanahu wa taala daafa ful na mooy bëril na li ibaadihi ñeel jaamami almuminina ñiy wéy gëm alxasanaati tiyaabo ya dañuy jëf lu tuuti mu fay leen lu bari wa safaxa mu jéggal te jëllale lahum ñeel leen bi tawbati ci sababi tuub an kabairi sayyiaati way magi bàkkaar maanaam buñ tuubee bàkkaar yu mag yi yépp mu baal leen wa gafara lahum sagaira baal leen bàkkaar yu ndaw yi bi tinaabil kabairi ci sababi teet bàkkaar yu mag yi waaw ah, bàkkaar yu mag yi moom foog nga tuub waaye yu ndaw yi nag boo baa teetee yu mag yi rek yu ndaw ndawaan yi mu baal la xaw ma nag xaw ma nag yan mooy yu ndaw yi xaw ma yu ndaw hmm? mu mel ni lim la wax dafay tax nga ne ah, kon nag ki tuubul bàkkaar yu mag yi moom bu dee safara la jëm mu ne ah dee bul gaaw de wa jaala def na man ki nga xam ne lam yatub tuubul minal kabaayir ci bàkkaar yu mag yi sairan muy aji mujj ila machiatihi jëm ci coobare yàlla kuy toggoo bakaar yu mag yi ba dee te tuubut dañ koy bàyyi ak coobare yàlla bu ko neexee baal su ko neexee duma waaye kenn du wax ne ah moom de comme tuubaloon yàlla baalul ko déedéet benn bàkkaar rek la nit di deeyaale te yàlla du ko ko baal mooy shirk moo tax mu ne mu indi la laaya ji inna allaha yàlla laa yaxfiru du baale an yushraka bihi ñu bokkaale ko wa yaxfiru dana baale nag maa duuna dalika lu loolu liman yashaaw ñeel ku ko neex lu dul bokkaale rek yàlla mun na ko baale waaye bokkaale mën du ko baale wa man aaqabahu llahu bi naarihi képp ko xam ne yàlla mbugal na ko mbugalee na ko safara axrajahu dana génnee ko min ha ca safara sa bi imaanihi ci sabab si ngëmam lu ngëm la tuuti tuuti borom du sax safara bés yàlla dana ko génnee fa adxalahu bihi ci sababi ngëmam mu dugal ko jannatahu aljanna maanaam ku bon ak lum bon bon ba tax yàlla yóbbu ko safara bu fekkee ne am na benn pepp ngëm yàlla ci xolam yàlla dana ko génnee yóbbu ko aljanna du sax safara maanaam du fa nekk abadan mu mel ni danga ko laaj tegtal mu ne la fa man yaamal yàlla ne ku jëf mithqaala lu toll ni peppub darra xayran ci yiw yarahu dana ko gis wa yuxriju dana génne minha ca safara bi shafaati nabii ci sababi rammum yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi sallam man képp koo xam ne shafaa lahu yonent bi sallallahu alayhi sallam na ko min ahlil kabairi ci borom bakkaar yu mag yi waaw képp koo xam ne yonent ñaanal na ko njëkk yàlla yàlla dana ko génnee safara min ummatihi ci xeetam waaw maanaam shafaati li ahlil kabairi maanaam ñi gën a soxla ràmmum yonentu sallallahu alayhi wasallam mooy ñi gën a bari bakkaar mooy ñi gën a mburéy bakkaar ràmmum yonent moom ñëpp a ko soxla ndax il faut yonent bi ràmm pour yàlla atte jaam ñi yawmal qiyaamati yàlla dekkil jaam ñi dajale leen ci benn barab indi jant bi ba mu jege leen nit ñi di ñaq yàlla mer-mer moo xam ne mosu koo mer safara di fipp dégg koo gis ma mel na ko ndeyam jure ah, basin yu rafet yi ah, basin bu rafet amu fa waaw teg ah, basin bu rafet amu fa yonentu wax na hadis ne bu yowmal qiyaamati ñëppay dekkee taati neen mu ne góor ñi jongoon sax dañuy dañuy dellu na leen seen ndey jure woon jong ba dafay dëñ ndey Aïchatu gis nga kenn yawmal ah, qiyaamati dama dégg ñu ne am na ñoo xamante ne dinañ sol ay yére mais ça dépend am na ñoo xamante ne dina passé seen oom mais am na ñoo xamante ne dina dina wàcc ba si suuf. Eh, xaw ma daal kenn kenn du sol yére ça dépend si catégorie. kenn du sol yére am na ñoo xamante ne dina muur. kenn du sol yére waaw kenn du sol yére kenn kenn du sol yére bu yàlla noppee nag ki muy njëkk a solal yére mooy yonent yàlla Ibrahima. ah mu mel ni dañ ko ko fayee futti gañ ko futti woon dugal safara ci ci àdduna. waaye nday Aysatu laaj yonantu sa alayhi wa sallam ne ko ku nekk di xool sa morom mu ne ko nday Aysatu loolu doo ko tal kenn du xam ne sa moroom sa lu yére ndax balaa nga ne naam ne fa waaye ñëppay tiit ñëpp nag daw fëx jëm ci aadama ko suñ borom mer na mer moo xam ne yow rek yaa ngi ci mën a dimbale waxalak moom mu atte jaam ñi gis koo xam ne nit ñi danañ ngéeju sax yàlla atte leen même bu leen di yóbbu safara waaye xaar xaar bi rek ak ak ak waaw moom soixante mille ans la alfa sana ci suratul maarij waaw nag loolu mooy loolu mooy li loolu yàlla nag mën na la ko bañ a yëgal mën na la caa hmm. dimbale mën na laa mën waaye nag lii moo xew de incha allah ah, nag daw fëx seeti aadama aadama hmm. daal di joxe ngànt ndax la mu def dem leen seeti hmm. nuux waaw ah, nuux joxe ngànt seeti leen ibrahima joxe ngànt seeti leen muusa joxe ngànt waaw ah, seeti leen isa ñi jiitu ku nekk tudd na la mu def waaye Isa moom tuddul deful dara waaye teexul taxul mu am fit seeti leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah, loolu man rekk ci jëkk ñaan yàlla njëkk maak waa ana laha a ñëw ba ci bunt suufu arash rek mu sujjoot yàlla yenkawal ko ci xeeti cant yoo xam ne mosu ko ko yenkawal mosu ko yenkawal keneen muy tagg yàlla yàlla ne ko hmm. jogal ko jogal fii jaamu yàlla amul dul sal tuta wa shuatu shafa laajal loo laaj ñu jox la rammul ko ramm mucc waaw laajal loolu mooy ramm gi nga xam ne xatta lan bi yonent yi sax dañ ko soxla hmm. ramm gi muy wax fii nag mooy borom bakkaar yu mag yi mooy bandi yu mag bandi sama classe gi boobu yàlla nañ ci yàlla boole mosul nee na wa anna allaha war na ñu gëm ne yàlla subhaanahu e, gàcce ngalaama moom dañ amoon benn sëriñ ñun lay firee subhaanahu gàcce ngalaama yàlla moo bind bind na aljanna aljanna waaw am na ñoo xam ne lañu jàpp ne aljanna kenn bindagut ko bu yomal xiyaamate lañuy soog lañ koy soog a bind mu ne bëgg laa dindil pas-pas boobu neex yàlla bind na ko bu yàgg fa aaddaha mu préparé ko daara xuludin muy kërug sax li awliya yi ñeel ay xaritam wa akramahum dana leen teral ngay wax fiyaa ca aljanna bin nazari ci xool ila wajhil karim waaw def na ko akramahum teral na leen ndax yàlla amul temps moo tax amul temps le passé le futur et le présent loolu ñun ñoo ko am waaye moom amu ko moo tax mu ne waa këram moom mu teraleel fiihaa ci aljanna teraanga ji gën a rëy aljanna mooy yàlla teral gi muy teralee jullit yi ak xaritam te mooy xarit ñooy xaritam yi bi nazari xool ilaa wajhil karim ci kanamam gu tedd dëkk yàlla bu mu ñu ëmp yaa rabbi waaw waaw loolu rek a tax nag ah, loolu rek aljanna kat eh, xool yàlla rek tax mu mu li mu nekk lim nekk ak dëkkaale gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw benn nit yàlla dañ ne ko misaalal ñu aljanna nu mel mu ne fiihaa rasulullah yonent nga fa <laughs> sallallahu alayhi wasallam waaw yonent nga fa yonent nag description aljanna waaw sif lana aljanna mu ne fiiha rasulullahi sallallahu mu ne waxiya te aljanna ji may wax kat yàlla préparé pour ay xaritam lëtii mooy aljanna ji nga xam ne ahbata minha ci la wàccee woon aadam nabiyahu kii yonentam wa di xalifam ila ardihi jëm ci suufam bima ci sabab si la nga xam ne sabaqa jiitu na fi saabiqi ilmihi ci aji jiitu ci xam-xamam dafa am ñu jàpp ne aadama aljanna ji ñuy wax ne fa lañ ko wàccee woon ci kaw suuf la woon maanaam jardin la woon bu yàlla bindoon jox ko ko ci kaw suuf mu ne déedéet aljanna ji ko yàlla wàccee aljanna ji may wax nii nga xam ne fa lañ jëm aljanna jooju ci boppam ci la yàlla wàccee aadama wàcc ci suuf mu bëgg nga xamit ne lekk garab ga taxoon mu wàcc de lu tax mu wàcc mu ne bi ma bi ma sabaqa ci li jiitu fii sabiqi ilmihi ci aji jiitu xam-xamu yàlla ci aji jiitu ji xam-xamam moom yàlla maanaam yàlla ba muy sàkk aadama da lu mu wax inni jaa'ilun fil ardi ah xalifa fil ardi la waxawul fil jannati boobu bindagul aadama sax kon plan bi moo doon mu indi ko suuf aljanna dafa jaaroon rek waaw waaye lekk gaa tax gis nga ba mu lekkee pom bi daal di topp ci kii bi prox gi moo tax ñu am adam sa apple jigéen ji moo ko ko lekk loo moo tax muy gis mbërëg di am doom yàlla di ko mbugale yooyu nonsense la amut de amut de amut hmm. yàlla ñoom ñaar ñëpp la yadd ñoom ñaar ñëpp a tuub ñoom ñaar ñëpp la baal waxul ne ah Hawa moo ko lekkaloo am na sax ci alxuraan foo xam ne Adama rek la fa lekk la la fa la fa la fa yadd yaddu ah Hawa waaye léegi-léegi nag ñun dañuy jaawale biblical reality and reality ah seytaane moo leen tarxiisloo hmm. yàlla noonu la wax de fa azallahuma cheytaanu moo leen tarxiisloo hmm? moo leen tarxiisloo waaye yàlla moo namm loolu ndax moom ndax bu tarxiis ba amutoon konoon du ñu wàcc fii du ñu wàcc fii tarxiis ba amuloon konoon du ñu wàcc fii konoon du ñu wàcc te yàlla plan am kat moo doon ñu wàcc te fokk mu ut ale bi pour ñu wàcc per nga ci mënul waaw ah. waaw wallaay Ibn Arabi nee na eh, mbóot mi ci lekk mi tudd mbóot mi ci lekk gim lekk loolu moo tax mu ne bu fekkee ca la jaaree ba wàcc ba war a nekk maami yonent yàlla Muhammad waaw ah. wallaay salaam <laughs> ah. wa xalaqa naara yàlla binda safara yàlla nañ ci yàlla musal fa aaddaha mu préparé ko mu xadu ko mu xadoo ko bu doon saalum saalum loolu lay wax xadu moo xadoo safara daara xulóodin muy kërug sax kërug béel liman kafara bihi wa alxada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi képp koo xam ne weddi nga ko weddi ay aayam weddi téeréem weddi yonent yi ko weddi rek sax moo indi ilhaad waaw ah, jëng ba doo topp fi ayaat yi ba doo gis fi ayaat yi nekk ci téere yi wa kutubihi wa rusuli képp ku weddi yàlla te mooy ki weddi ay kéemtaanam weddi téereem yi weddi yonentam yi ku ne gëm na yàlla te gëmul kéemtaanu yàlla yi gëm naa yàlla waaye gëmuma téereem yi wala gëmuma téere sàngam gëm naa yàlla wala ay gëmuma yonentam yi wala benn ci yonentam yi laa gëm ña ci des gëmuma leen ñoom ñëpp yéefeer wa jaalahum mu def leen ñoom yéeféeri mahjubiina ñuy ñu ñu yiir an ru'yatihi walis gis yàlla kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun thumma innahum la saalul jahim waaw kiiraay mooy cosaanu bépp mbugal boo seeti woon kilifa goos bëgg ko sopp mu sopp la mu la daan dalal bés bu ne nga yegg mu tëj buntam ne ne dama bëgg gis kilifa gi ñu ne déedéet neen joxe na ay instruction ne yow bul bul yow bul dugg waaw loolu mooy mbugal mu gën a rëy voilà bu fekkee dañ laa war a punir sax la tax mu ne la bul dugg loolu dana la détruire waaw moo tax ibnu ibnu ataay laay nee na mbugal mi ngi tàmbalee ci xijaab xijaab mooy jur iqaab mooy jur mooy jur azab yàlla ba mu leen fas yéene mbugal daf leen yiiru boppam kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun moo tax thumma innahum la saalul jahim aha xijaab muy ñëw jahim soog a dikk yàlla nañ ci yàlla boole musal mu ne wa anna allaha waaw war na ñu gëm ne yàlla tabaraka wa taala yaji'u dana dikk yowma alqiyaamati yowma alqiyaamati moom mooy atte jaam ñi na muy dikkee na kenn na xamu ko wal malaku malaaka yi danañ dikk yowmal qiyaamati saffan saffan ñu defi sàppe li ardil umami ngir gaar xeet yi wa xisaabiha ak xisaab leen wa uqubatiha ak mbugal leen wa thawaabiha ak fay leen maanaam yàlla dana indi malaaka yi dégg nga ñu def ay sàppe yowmal qiyaamati indi jinne yi indi doomu aadama yi indi xeet yëpp xisaab leen ñeen ci war a mbugal ñu mbugal leen ñañ ca war fay ñu fay leen yàlla buñ bokk yi ñu yu mbugal wa tuudau dees na teg almawasinu peesekaay yi li wazni amalil ibadi dégg nga ngir pese jëfi jaam ñi du métaphore daf la bëgg a wax ne peesekaay lu physique la lu am la nan lay demee ne yàllaa ko xam waaye la ñuy peser seen jëf fa man thaqulat ku diis na mawasinuhu ay dégg nga mandaxante jëf mandaxe jëfam yu baax fa ulaayika ñooñu hum ñoom almuflixuun ñooy way texe yi wa yutawna ñooy ñi nga xam ne dañ leen leen jox saxaa'ifuhum seen téere bi amaalihim bi ak seen i jëf waaw wa yutawna danañ jox jaam ñi saxaa'ifahum seen téere yi bi amaalihim maanaam seen téere jëf yi fa man utiya kitaabahu bi yaminihi képp koo ne téere jëfam joxe nañ ko la loxo ndeyjoor waaw maanaam loxo ndeyjooram la ko jëlee fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran danañ ko xisaab xisaab gu yomb wa man utiya kitaabahu képp ku jox téeréem waraa dhahri ca gannaaw gannaawam fa ulaayka ñooñu yaslaw na ñooyu ñi nga xam ne danañ dugg saxiran safara incha allah boole musul maanaam jéeféer bi buñ koy jox téere bi non seulement loxob càmmoñ bi lañ koy jox waaye dañ koy biir dégg nga jàllar bi ko mu dem ca gannaaw bu koy jël ca gannaaw gannaaw am la koy jëlee jël gi rek a njëkk a métti aha waa na siraata war nañu gëm ne siraat xaqun dëgg la ab pont la boo xam ni kenn du dugg aljanna te jaaroo ca te ci kaw safara lañ ko def waaw yajuuzuhu dana jéggi ko al ibaadu jaam ñi bi qadri amalihim ku nekk ak kem jëfam rek bi qadri ci kem seen jëf yi am na ñoo xam ne way mucc lañ mutafaawitoona way rawante lañ fii surati najaati ci gaaw mucc alay ci kaw pont bi min naari jahannama ci safaraay jahannama wa qawmun danaa am aw nit ñoo xam ne aw baqat hum alak na leen fii haa daane leen ca biir safara amaalum seen jëf waaw am na melax am na ñu gën a gaaw loolu am na ñu mel ni ñuy gaaw gaawaayu avion gaawaayu oto gaawaayu fas gaawaayu kuy dox gaawaayu kuy raam gaawaayu ku nekk rek dégg nga gannaaw yërmande yàlla ni sa jëf mel noonu ngay jege sa noonu ngay jege siraat am na ñoo xam ne danañ gaaw ba ñoom duñ yëg ne sax jege nañ siraat waaw ci yàlla boole waaw ñu koy yëg waa jéggim kañ la ñu ne ayo jéggi nga ba noppi kon neex na de. waaw. léegi naa ñu ne am na ñoo xamante ne bu ñu jéggi sira dañuy yóbbaale ay nit yi ñuy bokk. ah mën naa de. mën naa de service camarade. Sëriñ Mansour nee na ku service camarade amut sa camarade monté wut. service. service camarade. Mm. nee na ku ne service camarade amut sa camarade monté wut. sa camarade bokk nañ de. ah. mais nañ de rang nañ. <laughs> ñun ñëpp yàlla nañ bokk ci <laughs> yàlla nañ bokk ñu ñuy ñun ñëpp waaw. yàlla nañ bokk ñu ñuy yóbbaale ñun ñëpp waaw. amiin nañ bokk ci ñuy yóbbaale ànd ak bokk ci mbooloo mi yonent bi sallallahu alayhi wa waaw ah, de lépp lu ñu def ah, yowmal qiyaamati daal yàlla nañ ko defandoo ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ah. wal imaanu amin ya rabbal alamin war na tamit war na gëm war gëmit war na bi xawdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci déeg bi nga xam ne moom la yàlla préparé li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne tariduhu dana rot ko mooy dana fa dikk ummatuhu xeetam laa yadmau du marati man shariba ku naan minhu ngi taxaw di jox nit ñu naan ah, kan lañ jóoba nga bisimilah kii la Fatima bisimilah la Yaasin bisimilah Ah, ku ku ku ca naan dootoo marati waaw ci alayhi wa sallam incha allah ah moom moom dégg bi de waaye nag wa yudaadu danañ dàq anhu walis dégg ba man képp koo xam ne baddala bassin bassin boobu yonent di nekk bassin du bassin ngeen di wax wala bassin du bassin la avec des Mm-hmm. bassin wu yonantu bi sallallahu alayhi wa mu ne danañ ca dàq man baddala képp koo xam ne wattee na mooy ku soppi man baddala ku wattee wa gayarata mu soppi mooy koo xam ne li la yonantu bàyyee woon da nga ko ba dem ci leneen li yonantu ne woon da ca caa génn waaw yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne dana toog nekk dana taxaw rek ñu am ñuy ñëw ñu leen di dàq mu naan déedéet déedéet ñii samay gaay la samay gaay la ñu ne ko ah xew bi nga fi jógee ci leneen lañ newoon ñoom mu ne acca nañ dem fële kon moo tax mu ne képp koo xam ne wat wattee nga soppee soppi nga ah nee na doo doo am accès walla buñ bokk ci ñooñu yàlla bi wa annal imaana gis nga toujours dafay insister ci lii war nañu gëm ne ngëm yàlla xawlun wax la bil ak làmmiñ xawlun bil lisaani la ci làmmiñ wa ixlaasun akuk sellal bil qalbi ci xol wa amalun akuk jëf bil jawaarixi ci cër maanaam dafay bañ ne nga foog ne ngëm mooy li nga fas ci sa xol rek day det nee ngëm fas la la ngay nga koy fas di ko wax di ko jëfee waaye li nga fas dafa war a dëppoog li làmmiñ wi di wax li làmmiñ wi di wax dafa war a dëppoog li cër yi jëf ngëm nag yazidu dana yokk bi ziyaadatil amali ci yokkuk jëf yu baax yi maanaam nooy gën a jëf yu baax sa ngëm gën a màgg c'est-à-dire ngëm du loo xam ne dafa dafa dafa nekk dafay yokk bu jëf yu baax yi yokk wa yanqusu muy wàññeeku it moom ngëm bi naqsiha ci wàññeeku jëf yu baax yi su jëf yu baax yi bëree ngëm gi di màgg su nit ki wàññee ay jëf yu baax ba muy jëf-jëf yu bon ngëm gi di wàññeeku maanaam jëf yu baax yi bu bëree ngëm gi di yokk bu jëf yu baax yi wàññeekoo mbaa jaam bi di jëf-jëf yu mu warta jëf ngëm gi di wàññeeku moo tax ngëm dafay yokk di wàññeeku loolu mooy ngëmu ahlu sunnati wal jamaat moo tax fa yekoon di nekk fii haa cee jëf ya an naqsu wàññeeku wa biha ak ci sababi jëf ya ziyaadatu dolleeku wala yakmulu du mat qawlul imaani wax ne gëm naa rek illa bil amali gis nga lu dul mu ànd ak jëf wala yakmulu du mat qawlul imaani wax ngëm yàlla wax ngëm illa bil amali ndere ci jëf wala qawlun du caageen wax wa amalun ak jëf illa bi niyatin lu dul mu ànd ak yéene wala qawlun du caageen wax wa amalun ak jëf wa niyatun ak yéene illa bi muwaafaqati sunnati lu dul mu dëppoog lu dul mu dëppoog sunna yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam wax ne gëm naa rek doyut foog nga jëf wax ak jëf rek doyut fokk mu ànd ak yéene fokk mu ànd ak ixlaas fokk mu ànd ak yéene fokk mu ànd ak sellal waaye na wax na nga wax na nga jëf na yàlla tax lépp du la jëriñ feek jëf ja dëppoo wut ak ni yonentu jàngale sallallahu alayhi yàlla daal ñaar la am na dëppoog ni ko yonent bi jàngale na yàlla tax boo jullee ni la neex julli woo boo jullee it ni yonent bi daan jullee te sellaloo jullee goo waaw wa annahu ndaka luy mbir tey mbir war nañu gëm ne laa yakfuru du weddi ahadun kenn bi danbin ci sabab si bàkkaar min ahlil qiblati ci ñooñ qibla maanaam nit du def bàkkaar ñu nekk diw yéeféer la du tax nga nekk yéeféer hmm. li ci des bariwul de wa anna shuhada ak naka martir yi shahid yi axyaaun way dund lañ inda rabbihim fa seen borom yurzaquuna ñu ngi leen di wër ñu leen di wërsëgal war nañu gëm ne ñi dee ci eh, shahadatu lu mel ni koo xam ne dafa xeex ci yoon yàlla bañ ray ko ca Mm-hmm. yow yaa gis ne dee na waaye deewut ma ngay dund ca yàlla la wax yàllaa ko wax mm-hmm. yàlla ne ne walaa taxsibanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun bu leen foog ne ñi ñu rey ci xare ñi ñu ñu dee ci shahaadatu dee nañu bu leen foog loolu de bal li am axyaaun way dund leen inda rabbim fa seen borom yurzaquuna ñu ngi leen di warsagal foofu ñoom dañoo am xayaa al indiya buñ doon dund rek mu doy waaye dund fa yàlla ñoom loolu la ñu am inda rabbihim fa seen borom waaw loolu beneen dund la wa arwaaxu ahli saadati ruuxu way texe yi ñi nga xam ne dañoo texe seen ruux baaqiyatun aji des la wala way des la naaimatun way xewwu lañ ilaa yawmi yubaasuuna ba bés biñ leen di dekkal ki fi jógee te ruuxam bokk ci ñi war a texe yàlla dafa na ko créer benn formulu xéwalu dégg nga xéwal guy jógee aljanna mu koy mu cay bànneexu ba bu yàlla di dekkal jaam ñi waaw moo tax ñu ne xabru boo gis benn jardin la ci jardin waa aljanna wala muy pax ci paxi safara waaw wa arwaaxu ahli shaqaawati ruuxuñu way way texee di muadabatun ñu mbugal lañ ilaa yawmi diini ba bés penc yawmu diini mooy bés bi yàlla di fayanteeg jaami aha maliki yawmi diini du fa am na ñoo xam ne maliki diini firiwul bésu diini bésu fayante bésu fay ba diin fay lay firi foofu Ah, ah, diin moo tax alxuraan boo ko firilee sa bopp rek àdduna tukki àdduna tukki ah, ndeysaan saar wu doy waar la nag kon bi fatiha wu doy waar la am na ku feebaroon ñu ne ko da ngay wut sóoru da ngay xam wan saar moo amul faa ci alxuraan ban saar moo amul faa. amul faa. ah Fatiha. macha allah Fatiha pourtant faa la tàmbalee Fatiha tur bi <laughs> waaye amul faa. moo xam ne mooy rek mooy saar bi amul faa ci alxuraan waaye lu la mën a jot boo ko boo ko naan ko wala nga jàng ko tartu ci ndox naan ko mu wér. Ah. loolu waaye ñu bàyyi loolu sëriñ si waa nal muminina war na ñu gëm ne jullit yi yuftanuuna danañ leen nat danañ leen fitnaal fi xuboorihim ci seen xabru wa yusaloona te mooy ñu laaj leen fitna bi mooy danañ la laaj danañ laaj mooy yow kuy sa borom moo ci ban diina nga newoon moo yow luy danañ la woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dee rek danañ la woon yonent bi xadis jàng ci Buxaari yonent ci sa bopp bàmmeel ñu ne la maa ilmuka bi hada rajuli moo loo xam ci waa ji su boobaa nag yuthabitu llahu yàlla dana saxal ladina ñi nga xam ne amanoo gëmoon nañ yàlla ci àdduna bil qawli thabiti ci wax ju sax ñu ne ah ah kii saa waajee yonent yàlla Muhammad a ngi sallallahu alayhi wa sallam ah kuy sa borom yàlla subhanahu wa taala sa diine lislaam sa téere alquran sa qibla kaaba ñi nga xam ne gëmoon nañu yàlla dana leen jox dana leen dana leen saxal ci wax ju sax fil xayaati dunia ci àdduna ji li nekk ci àdduna yëpp laa ilaha illallah la ñuy wax wa fil axirati ba alaxira it te alaxira kat mu nga commencé dee dee mooy awalu manazil al axirati première station waaxira mooy dee wa anna ala al ibaadi war nañu xam te gëm ne ànd naag jaam ñi xafadata xafadatan ay malaaka yoo xam ne ñu ngi wëttu way wëttu lépp loo xam ne jaam beng koy def maanaam xam nañ ko mokkal nañ ko loo def gis nañ ko xam ko te duñ ko fàtte loolu rek doyoon na ànd ak nag yaktubuuna sax dañuy bind amaaluhum jëfi jaam yi wa inna alaykum la xaafidina gis nga xafadatan la xaafidina kiraaman kaatibina wala yasqutu te du wadd nag cheyun dara min dalika ci loolu la nga xam ne jaam bee nga koy def ñu di ko bind an ilmi rabbihim walis xam-xamu seen borom maanaam ñoom la ñuy def noonu formalité la waaye dara umput ci yàlla fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina waaye fala naqussanna alayhim bi ilm ba pare wa ma kunna ghaibina ña nga fa woon ña nga fa woon waaw waaw we were there we were not absent ko mhm. léegi tey ñu yeggali tey moom guddee nañ waaye yéena ma jox feu vert <laughs> léegi tey mu yegg <laughs> eh, wa anna malakal mawti war na it ñu gëm ne malakul mawti yaqbidul arwaaxa mooy jël ruux mooy ngëb ruux mooy rey jaam ñi bi idni rabbihi waaye ci njëgalu boromam de bu ko yàlla joxul ndigal malakul mawti munut yow tus waaw qul yatawafaakum malakul mawti alladi wukkila bikum ndigal rek bi idni rabbi ndigal waaw waaye bu amul ndigal mënu laa rey waaw moo tax ñu naan dama ragal ma la ciy ragal min def la comme yow min la comme yow de xanaa malakul mawti dafa raglu ah dafa <laughs> la de am na ñoo xam ne duñ ko yëg sax am na benn kilifa gu mag ca Mauritanie bés bi muy dee waa kër Cheikh Tidiane la te dee laa anum dafa invité dafa woo xaritam yi ak taalibe yi ñoom ñu ñëw mu ne ah man de dama leen bëggoon wan rek nu taalibe Cheikh Tidiane di dee waaw bi malakul mawti di agsi mu ne ñu dégg ma naan bismillah malakul mawti agsi na waaw fu roog gi toll mu naan leen mi ngi toll sama roog maa ngi nii di janoog yonantu maa ngi nii janoog nangam ba ni mu waaw am na ñoo xam ne yàlla daf leen di won parce que xam nga dee lu métti la Mm-hmm. lu métti la moo tax nga gis léeg-léeg kii dee euh, physiquement yaramam di yëg méttit yaa ngi dégg mais moom mii de mën naam yëgu ko mais yaram bi mooy réagir mooy réagir ci méttit bi parce que that's the physical law waaye moom mën na am yëgu ko xam nga lu tax mën na am bi muy dee yàlla wan na ko barabam bi mu war a dugal janna rafetaayu barab ba mooy tax lu métti bi métti xam du ko yëg mën na bi muy dee yàlla wan na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam janoo gi muy janoo yonent bi tax na jéegul métit bi dee bi moom waaw mën na bi muy dee yàlla sax wan na ko boppam far subhaanahu wa taala loolu yàlla wan nañu wax nañu ko ci alxuraan wax nañu ko ci alxuraan benn nitu yàlla nee nañu dafa gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu na mu demee mu na ko pourtant jàng nga ko ci alxuraan kooka dem jàng alxuraan ba mu jeex mu géntaal yonent bi ne ko man de alxuraan ba mu jeex mu ko jàngaat ko waaw ci ñetteelu yoon bi mu ne ko jàngal sóoratu Yusuf waaw ca falamma raaynahu akbarnahu wa qataana aydiyahun wa qulna xaasha lillahi ci la gis affaire ba jigéen ñi Zulayxa ba ñu gisee Yusufa bi mu ne tëll ak bi dañu affole ba fruits ak légumes yi ñu yore woon di ko dagg di dagg seen loxo yi lañ mujj di dagg waaye taaru Yuusuf bi tax na seen loxo yaa ngi sotti deret we ñoom yëguñu ko ndax li ñu li ñuy assisté tax na yëguñu métit bi bi Yuusufa jàllee la ñu soog ci seen loxo yi ne ndeke mi ngi dagg ndegam taaru Yuusufa nag moo leen mën a def loolu waa ki janoog yàlla mbaa yonent nag moom ci eh. yàlla wan taaram yi nag moom ndax dana yëg dee moom waaw moo tax di nga gis nit ne mi ngi souffrir fekk moom yow yaa gis yaramam mooy souffrir waaye moom souffrirul yaramam mooy souffrir te yaram nag it's a it's a cover it's a Jean de La Fontaine mu ne do not judge a book by its cover by cover ne jugez pas un livre par sa couverture te yaram bi it's a cover lu ne nag lañu la daj ci ci cover bi fàtte téere bi ak koofe bi moom dinañ ko wutal lal bu nooy dinañ ko wutal yëre yu rafet danañ ko wutal ay lunettes dinañ ko wutal montre dinañ ko wutal lu ne waaye li téere bi li li gi muur muy téere bi te mooy ñun moo ñun moo lan lañ ko préparé la euh, te mooy ruux hmm. wa anna xayral quruni war na it ñu gëm ne gën ci maas yi muy génération yi maas xarnu mooy téeméeri at gën ci maas yi alqarnu mooy siècle alladi bi nga xam ne raaw gis nañ rasu raaw gis nañ rasulallahi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne maas gi nga xam ne gis nañ yonent bi ñooy maas gi gën ci maas yi mooy maasu saxaaba yi wa anna xayral qarni bokk na wa anna xayral quruuni dégg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee maas gi gën ci maas yi mooy sama qarnu topp qarnu ba ca topp topp qarnu ba ca topp wa anna war nañu gëm ne gën ci maas yi alqarnu mooy maas alladina gi nga xam ne raaw gis nañ rasulallah alladina ñi nga xam bu mu wa amanu te ñu gëm bi ci moom ñi ko gis gisu xol ndax Abu Jahal gis na Muhammad ibn Abdullahi waaye gis lu Rasulullahi sallallahu alayhi na ñoo xam ne Muhammad ibn Abdullahi lañ gis ñooñu duñ jëriñu ñu gis Muhammadu Rasulullahi ñooy jëriñu Muhammadu Rasulullahi moom mi ngi mi ngi ak ñun ndax yàlla moo ñu ne waalamu anna fiikum ha jàng suratul xujuraat ah waxal fatimatu jàng suratul xujuraat wa alamu anna fiikum rasulallah xam leen ne yonent a ngi ci seen biir la yàlla wax wa alamu xam leen ne anna fiikum nekk na ci yéen rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kon Muhammad ibnu Abdullahi moo fi jógee waaye Muhammad rasulullahi moom du fi jógee mukk mm-hmm. Mm-hmm. summa alladina yaloonahum topp maas di topp ci ñoom summa alladina topp ña nga xam ne yaloonahum méng nañ leen maas waaw ñi gën a maanaam baax daal mi ngi nekk ci jege yonent bi waaw boo bëggee xeeñ lu neex da ngay te lu neex da ngay jege ñii xeeñ lu neex waaw mm-hmm. eh, te yonent bi nag loolu nag ci zaahir la ci ci baatin Umu Sulaym dane bu bu bi daan nelaw ba ñaq dañuy jël seen kopp yi di ko deg ci suufam ci suufu baatam ñaq bi di wadd ci kopp seen kopp yi ñu defaree seen parfum yi ndax ñaqam moo gën a neex parfum xale bu mu dajeel ni ni sa papa daan xamee ne daje nga ak yonent bi tey boo yegsee ci kër gi parfum wu yonent ngay indaal odeur wu bi moo dàq parfum sallallahu alayhi wasallam noonu it la ko loolu loolu ci biir la ak ci biti nag waaw ci biir la ak ci biti waaw. xanaa dégg naa ne ñoom itam bu dëkkal ñu ko suul ba pare mu sangoo farata ba pare dañuy jël ndox boobu di ko séddoo ci seen biir ñoom. jàpp jàpp bu jàppaa ba pare dañ daan xeex ci ndesitu njàppam bu bu ko watee dañ daan xeex dañ daan séddoo karaw gi léppam barke sallallahu alayhi wa sallam lépp. moo tax ngay dem ci benn ci muséum yi ci euh, Turquie wala beneen dëkk di fa fekk karawaanam karawam ndax dañu préserver léppam sallallahu alayhi wasallam aha wa afdalu saxaabati gën ci ñi àndoon ak yonantu nag mooy saxaaba yi mooy képp koo xam ne daje nga ak yonantu bi te gëm ko ta dee ca loolay saxaabi yu waxuma ku ko gis de ku dajee ak moom lan mooy différence su dajee gis bokk ak moom jamono waaye mën nga bokk ak moom jamono te dajee moom dajee moom mooy nga nekk nga ñëw fi mu ne gis ne yonent baa ngi nii même su fekkee ne amuloo bët yoo ko gisee dajee nga ak moom su fekkee da ko koo dégg gëmoo ko nag même su fekkee ne euh, julit nga taabiiw nga bu fekkee ne gisuloo ko najaashi yu buur la gëm na yonent bi moo njëkk gaañu yonent sallallahu alayhi wa sax waaye taabiiw la ndax gisul yonentu bi dajewul ak moom ndax ma nga woon ci Habasha ñëwul Madina buur la woon ma nga woon ci Éthiopie moom saxaaba yi ba ñuy gàddaay Makka di dem Habasha moo leen teeru gannaaw ga la dugg ci lislaam ñi ànd ak ñun umra dem ngeen masjidul xamaamati jàkka ja nga xam ne fa la bi barab bi xam ne fa la daan baawee naan baaw naan mooy ñaan ndox te mujj tabax ko jàkka gannaawam barab boobu pàkk la boo xam ne yonent bi fa la daa jullee it fa la jullee it najaasi yu bi mu gaañoo julli ku faddu the absentee prayer salaatul janaza wala salaatul ghaibi wa afdalu sahabati ñi àndoon ak yonent bi nag ñi ci gën alxulafaa ur rachidun mooy ñi nga xam ne ñoo wuutu yonent sallallahu alayhi wa sallam baax almahdiyuuna ñi ñiñ jubal ka ca njëkk mooy seydna abou bacrin summa summa Umar summa Usmaan summa Aliyun radiyallahu anhum ajmain Aboubacar ak Omar amul sikk ne ñoo gën ci saxaaba yi Aboubacar ak gën amul sikk Seydina Omar topp ci amul sikk diggante Seydina Usmaan ak Seydina Ali am na ñu ñuy wax ñuy werante kan ci gën waaye li gën a siiw mooy Seydina Usmaan a gën niñ toppantee ci xilaafa noonu lañ gënantee wa alla yuzkara war na ñu bañ a tudd ahadun kenn min sahabati rasuli ci saxaaba yonent sallallahu alayhi wa sallam illa bi ahsani dhikrin lu dul gën caa rafet ji dhikr gën caa rafet ji tudd képp koy tudd ci saxaaba yonent yi sallallahu alayhi wa sallam na nga am teggin na nga wax la gën a rafet jëm ca kookee waaw ndax képp ku leen manqué yonent bi nga manqué sallallahu alayhi wa sallam wal imsaaku war na it jàpp amma shajara baynahum ci la nga xam ne xewoon na ci seen diggante muy léeg-léeg ay wuute politique wala ay wute xalaat loolu yàlla musal na ci suñu bët nañ ci musal suñu làmmeñ uh-huh. waaw suñu yoon nekku ci ñun ñoom ñëpp suñuy sang lañ aha uh-huh. uh-huh. wa annahum war na it ñu xam ne ñoom a xaqu naasi ñoo wa annahum naka ñoom a ñoo gën a yeeyoo ci nit ñi an yultamasa lahum ñu sàkkul leen ahsan almaxaarij gën jaa rafeti wayu wa yudanna ak jortu bihim ci ñoom ahsan almadahibi ahsanu almadahibi gën jaa rafet ji dem maanaam képp koo xam ne nii ñu ngi lay wutal excuse ba duñu wax ci yow lu ñu warta wax saxaaba yi ñoo ci raw lu tax ñoom la yàlla jox privilège ñoom la yàlla jox faveur ñoom la yàlla jox ngëneelu ñu àndat yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa loolu keneen amu ko ko dul ñoom ñoom rek ñoo dund ak yonentu bi ci alamul mulki di soldaaram di surgaam di lépp kon nag bu fekkee ne diggante Seydina Ali ak diggante Seydina Muawiya amoon na ay problème politique kooku bu fekkee ne dangay nettali histoire pour jàngale na nga xam noo koy nettalee waaye bu fa nekk naan kii moo mel nii kële moo mel nii kële ñoom ñëpp ay sang lañ ndax Seydina Aliyu kenn werantewul ni mel moo njëkk a gëm yàlla ci li yàlla bind dégg nga gannaaw Seydatuna Xadija moo njëkk a gëm yàlla maanaam ci moo njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muawiya bokk na ci ñi daan bindal yonent bi bu wax yu gi wàccee ñi nga xamee ne ñoom ah, xulafaa rashidun yi Seydina Muawiya bokkoon na ci kuttaabul waxyi waaw léeg-léeg nag problème mu ay chia ak sunna ak problème mu nangam nangam ba tax nga boo ci duggee te xamuloo ko rek da nga wax musiba wax musiba ndax ñoom ñëpp ay sang lañ wa taatu topp war li aimmatil muslimina njiiti jullit yi min wulaati umurihim ci way méngoo seeni mbir wa ulamaim ak seeni borom xam-xam des leenaa war a topp fekk ñu ngi topp li yàlla wax ak li yonantu sallallahu alayhi wa sallam salafi ak topp njiit mag wattibaau salafi ak toppu mag a saalix ñu baax ñi mag ñu baax te yonantoo ci jiitu saxaaba yi topp ci ak ña topp ñoom salafi war na njiit a saalix gay aji baax mooy mag ñu baax ñi waqtifaawu athaarihim ak xencu seeni njeexit xool nañu defoon ba baax nga jéem a def noonu nañu meloon ba baax nga jéem a mel noonu wal istigfaaru lahum war nañu baalul leen ndax yàlla moo ne walladina jaa'u min baadihim yaquluuna rabbana agfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman yàlla dafa tudd lil fuqaraa al muhajirin mooy ñu jógee Makka ak walladina tabawwa'u daara wal iman mooy waa Madina muy muhajirin ak lansaar ñoo ñoo seqoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba gannaaw ga mu ne walladina jaa'u min ba'di mooy ñun ñoo ñooy ñun ñi ñëw gannaaw ga lan la ñuy wax yaquluuna rabbana ghfir lana yàlla baal ñu wala ixwaanina ak suñuy mbokk alladina ñi nga xam ne sabaquuna bil imaan ñoo ñu jiitu ci ngëm moo tax wal istighfaaru lahum des leen a war a jéggalul yàlla wa tarkul mirai war na it bàyyi werante wal jidaale ak dagga sante fi diine ci diine diine du lu ñuy werante du lu ñuy daggasante waaye da ngay gis ñu naan ustaas bi wax na nangam kële wax na nangam bu ko defee nga naan kii moo wax dëgg mën kële laa faral mu nekk Modou Lo ak Ama Balde ah doxul diine du ay mbër al mbër dégg su fekkee am na lu déggoowul sax na tege ci ay texte te na am teggin waaye werante ak daggasante kenn du def ci diine wa tarku kulli ma ak bàyyi lépp loo xam ne ahdathahu sos na ko almuhdithuuna soskati mooy lépp loo xam ne ni bokk ci bu bu bu bu ca bu ca nangoo dugg boo gisee ñu boole ko ci it yow bu ca boole bu ko ca boole yow waaw lu nekkutoon diine démb du ko nekk tey wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa sallama taslima yal na yàlla dolli xéewal dégg nga dolli mucc yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak waa ak ay ñoñam ak i soxnaam ak i njabootam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama hada wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin gudd na de ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu <laughs> alhamdulillah daa baax na macha allah macha allah amin ya rab amin الفعل ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع